Et parmi les organisations sociales avec lesquelles nous collaborons, il y a l'ONCAV. Et nous sommes toujours dans le cadre de dérouler de nouvelles stratégies de lutte, euh, de promotion de la vaccination. Vous que ces derniers mois, le taux de vaccination n'a pas beaucoup évolué au Sénégal. C'est dans ce sens qu'en appoint avec euh, l'UNICEF, nous avons obtenu un financement sur lequel nous avons quand nécessaire de profiter de cette grande rencontre nationale des phases de navétane pour venir booster le taux de vaccination. Donc aujourd'hui, je suis venu avec mon service technique, avec notamment Dr Guissé, qui va faire une importante communication sur la nécessité pour les dirigeants navétanes de transmettre le message au niveau de leurs ASC respectifs pour booster davantage le taux de vaccination. Nous avons dépêché une équipe technique avec euh, le médecin départemental de Dakar qui est basé à l'université, mais également les équipes techniques de Gaspard Camara qui vont faire la vaccination pendant ces phases navétanes pour pousser en haut le taux de, de vaccination dans notre pays. Bon, on est là jusqu'à lundi, normalement, l'équipe de vaccination, jusqu'à mardi même. Tant les gens ont le besoin encore, les équipes de vaccination seront là pour continuer à faire la vaccination au niveau des équipes parce que bien qu'aujourd'hui la tendance est à la baisse au niveau de notre pays, mais il faut encore continuer à encourager nos concitoyens à prendre le vaccin. Base nationale yi ci sama titre directeur du service nationale éducation information pour la santé xam nga ci suñu réew bien que doomi jàngoro ji Covid bi wàññeeku na waaye teewul madame la ministre ak instruction yi ñu jot autorité yi mooy continuer ñàkk yi loolu moo tax nag euh, ci UNICEF mu bëgg ñëw fii tey ànd ak mouvement nawetaan yi ni niñ koy àndee ak yeneen organisation yi muy bàjjenu gox yi muy imam yeeg ulema yi tey nag ñëw fii ci nawetaan yi dañu am maillage au niveau national fépp lañ am ay délégué donc c'est normal que ministère de la santé ñëw tamit ànd fii déplacé fi une équipe de vaccination nga xam ne médecin chef Gaspard Camara ñoo ko yore ak université yi xam ne équipe médicale indi équipe de vaccination délégué yi ak joueurs yi nga xam ne ñëw nañ participer ci phase nationale yi yëpp bëgg a ñàkku ñu mën leen a ñàkk ñu profité ci tamit participer tey ci forum bi def ci ab communication waxal délé waxa xamal délégué yëpp effort yi Sénégal def ci ñàkk yi ak fan lañ ci toll ak jàngoro ju bees yooyu ñu naan Crimée Congo yëpp tamit danañ ci def communication ci conférence bi docteur Guissé ci SNEIPS turu ministère de la santé dana def communication bi am nañ fi teewaayu tamit Ousmane santé ñu waxtaan ak délégué ASC yi ak joueurs yi pour que bu ñu ñibbee tamit ñoom ñu mën a porter message boobu ci seen i pour que ñàkk yi ñëpp mën a xam ne gouvernement Sénégal def nay effort ba ñekk yaa ngi fi waaye il faut que nit ñi continuer jël ñàkk yooyu parce que jàngoro ji ba léegi ñu ngi ci fi xam naa ba altine talaata équipe yi ñàkk ñi ngi fi képp ku bëgg a ñàkku ñu la ñàkk ñeneen ñi nga xam ne tamit dañuy delluwaat dañuy delluwaat seen dëkk bu ñu demee mën nañu dem ci département yi ñu bokk mën fa jël Messe. Danke.